jëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di réew mi TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy door rek accident bi nga xamante ne rek moom moo am foofa ci diwaan bu Koungheul kii di président de la république na ci yëkkati kàddum nag nee na daal ma ngay sàkku ci mbir mu doy bi nga xamante ne rek moom moo daal di xew niki démb ci alxames ji fii ci route nationale numéro on den dëkk dëkk bi ñu duppee Yambang nekk ca département bu Koungheul région bu Kaffrine nag ci dëj bu métti rek la ñu nekk ab bus daal moom moo daal di këpp rek ci saa fukki doomu aadama ak ñeent daal nañ ci ñàkk seen bakkan ñu ci bëri rek jëlee ci gaañu gaañu yu métti waral kii di président de la république daal di def bi nga xamante ne rek daal dina koy am ca boobulee accident ne nag mbir mi mi ko daal mu nekk accident bu doy waar nga xamante ne rek ma nga xew ca diwaan bu Koungheul ne nag ma ngay jébbal njaal njaboot yi nga xamante ne rek ñoom ñoo daal di ñàkk ak ñi ci jëlee gaañu gaañu mu ngi leen di mbir mu nu mel ma ngay sàkku rek ci service yi nga xamante ne rek rek ñoom ñoo nekk service état ñu daal di booloo bu ko defee rek ñu mën a jàppale bu baax nag victime yi nga xamante ne rek ñoom ñoo daal di am ay jafe-jafe ci boobulee accident ne na nag ma ngay sàkku rek ñu gën a respecté li nga xamante ne rek moom mooy code de la route bu ko defee rek ñu mën a wàññi jiyee ji na nag ma ngay sàkkuwaat rek ci service de ñu respecté lépp loo xamante ne rek loi la jëmale ko ci technique oto yi ak lépp loo xamante ne rek dafay daal di rek dëppoo ak kaarange yoon bi jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàtte abonné bës cloche notification yi ngir mun a am yeneen i xibaar